national am na fu ñuy wax dañuy supprimer dañuy tuddee ay fonds politiques hein remplace ko par qu'on appelle des fonds spéciaux voté par l'Assemblée nationale hein, <laughs> relevant de la grande non ah, euh, pour les opérations très donc ultra sensibles mais li li li bima ko liiree très honnêtement je me dit mais ces gens-là de qui se moque pour des inspecteurs des impôts ni bindi jëfu caaxaan yi. parce que waaw parce que politique je suis dit y a les comptes y a les comptes spéciaux du trésor loolu non la tudd.

Dans, la nomenclature budgétaire de la présidente, il n'existe pas une notion de fonds politique. Non, Non, je sais. sais. Ah, non, non, non, parce que dans la nomenclature budgétaire de la présidence, il n'existe pas de fonds politique, il n'existe pas de quel C'est les comptes spéciaux du trésor. Mais non président de la République. la amee ministère de l'économie et des finances ñi la amee ministère de l'intérieur ñi la amee ministère de la justice ñi la amee ministère des affaires étrangères ñi la amee même ministère de la défense mooy les ministres de souveraineté yi nañ bàyyi seen waxu caaxaan yi quoi waaw léegi caisse noire nag ça n'existe pas dans la dans la nomenclature loolu xam naa ko amul ci nomenclature budgétaire mais ñoom bi ñuy wax fonds politique fonds boobu noonu. mais loolu tey xam nga xam nga ah, bu ñu doon wax comme le Sénégalais lambda bu ko Sénégalais lambda waxee mën naa ci mën naa ci wax ak moom mais quand même quand on est un cadre. mais xam nekkee cadre de des impôts. oui xanaa war ngaa xam ne li nga ñoom lii ñu ne moom la ñu bëgg ñu def ko mais loolu moo am. la notion de fonds politique la notion de caisse noire ça n'existe pas dans la nomenclature budgétaire li nomenclature budgétaire moi, les comptes spéciaux du trésor Ben, bu ne nag dafa am lu muy lu muy faj dama la jox exemple par exemple il y a le musal euh, mbir am a xam armée bi dafa a intervenir te xam nga budget moom pour nga décaisser c'est toute la croix et la bannière te te armée immédiatement de l'argent président à la République mën activer ces comptes les comptes spéciaux pour régler cette question euh, nga question maintenant nous avons bu inventer la roue maintenant nous avons ministère euh, DGI fonds commun yi ñu 300 millions par mois par an a fait fonds fonds commun les fonds du trésor yi wax nous de l'économie des finances à nañ ko nañu bayyi waxu yoy gis na seigne Sénégal limuy xaar ci ñi mu fal c'est des questions de fonds. pas des gadgets pour pour plaire à des à des analphabètes politiques et ou des analphabètes littéraires c'est des c'est des questions de. fonds. Ah, ah, c'est important c'est important parce que aussi le est lambda on a toujours parlé de fonds politiques Moi, il à la discrétion du président euh, les comptes spéciaux du trésor les comptes spéciaux du trésor

Don't des fonds spéciaux des comptes du trésor. D'après nous, ne alal joo à sa disposition. Mm. mu mën di si jël bu des février, des fois des des fois ay politique je pense que la les fonds politiques. alors est-ce que il si ce qui ce qui se à la discrétion du président y nous mënu ko contrôler mu ay maintenant ay ku mel ne IGE wala. cour des comptes daal du ko mën a contrôler. non non pas pas l'IGE e, pas pas l'IGE ñu. Macky Sall bi muy bi muy laaj réew bi mm. <laughs> moom dafa jël engagement ne bu faloo mm. day soumettre euh, la euh, le contrôle des comptes spéciaux de la présidence et des autres comptes. Ah, au contrôle de la cour des comptes. ah defu ko nag bi fi toogee ba ni mu parce que xëy na yooyu yooyu booy <laughs> boo nekk ci biti di ko wax mën nga mën naa nekk waaye boo duggee ci biir moom see mën naa compliqué encore une fois je crois très honnêtement que xëy na am na loo xam ne mën nañu bañ a wax lañ ko def waaye mën nañoo wax def ga parce que nag bu Sénégal waree am ay espions yu nekk yi ay réew mu war leen di fay. muy wàllu sécurité wàllu wàllu défense même wàllu même espionnage industriel l'espionnage yu bari ña nga xam ne ñoom ñoo nekk ci réew yooyu mu di jox xaalis bi defe naa bu ñu dee wax ñan lañ koy jox mën naa indi jafe-jafe ci réew mi. Hmm. xam nga dafa benn at moo xam ne day boo gisee même asam ñu duñu mujj débat bu armée bi ñëw duñu duñu duñu duñu débat ci bi parce que am benn at moo xam ne benn ministre dafa ñëw indi même les effectifs de l'armée armée de terre nangam nangam mais il a fallu la promptitude de certains députés xool avait bi xam ne lu grave on a ils ont ramassé tous les dossiers delloowaat ko ministère bi booba heureusement Facebook qui euh, réseaux sociaux yi amul su réseaux sociaux yi amoon bi maanaam Sénégal yëpp dañu xam ñaata sordara lañ am ak fan lañ leen def mais encore une fois am na yoo bon c'est vrai nag c'est-à-dire parfois jàpp naa ne les présidents de la République du Sénégal danañu di abuser ci comptes spéciaux du trésor yooyu et que jàpp naa ne loolu la laaj nañu ko maintenant l'encadrement c'est pas compliqué hein. c'est-à-dire nañu wax mais nan nous mënu dem c'est-à-dire nañu ne compte spéciaux yooyu du trésor yi mu ne su yee jënd joxe nangam des choses comme ça quoi yoo xam ne vraiment. oui oui oui oui parce que dans affaire sociale il y a des directions. c'est-à-dire dañ ko war a préciser. Euh, loolu mën nañu préciser fi dugg. te xay na duñ wax la ca gannaaw par exemple mën nga ne mën nañ ko def pour la sécurité du pays mën nañ ko def par exemple pour pour certaines interventions de l'État yoo xam ne dañ maanaam mbir mu taxaw temm la te boo ko bëggoon a def xëy na ki nga ko war a defal sax ba kanam xaj na ci je crois yu mel noonu war nañ ko mën a préciser mais li ma d'accordut mooy ñoom ñu ay boroomi xam-xam di wax ay fonds politique ak caisse noire loolu ko am xam-xam waru ko wax mais noonu ko am boo xam-xam askan bi boo bëggee mu xam da koy wax li am doo ko wax loo xam ne la mu bëgg dégg la da nga koy wax ne ko les comptes loolu mën naa la mën nga koo xool yëpp boo la neexee nga xam lu nomenclature budgétaire ministère yi ko am lépp mën nga koo xam même montant bi ci nekk mën koo xam xëy na pour la pour ce qui concerne président la république et même pour ce qui concerne le ministère de l'intérieur l'utilisation finale bi nga dul xam et là c'est lié à des questions de sécurité maintenant nag soo kee ñoom dañoo parce que nag il faut pas confondre transparence ak nudité ak nudité nudité ci mbedd mi lu ko dal moo ko teg boppam